Eh, xaar ma def rim zodiac sign dinañ ma wax ban ban ban dinañ ma wax i 21 mars ba 19 avril déedéet kay dafa mel ne 21 mars ba 19 avril la de <laughs> kon Cheikh Baara waxoon na dëgg laa ilaha illallah muhammad rasulullah Cheikh Baara waxoon na dëgg Cheikh Baara ne woon ne Macky Sall bélier moo ko moo koy génneeg palais bi moo koy mbëkk man sax dama ne woon ah kon xeyna man mi may bélier bi man makoy beug man makoy daane la Cheikh bar waxati na deug allahu akbar Cheikh bar waxna deug Cheikh bar ko waxone parce que mois de décembre la ko waxoon daaw maa ngi rappeler ba may man maana ah nee na bélier mooy Macky Sall ben kuy moy mbeuk Macky Sall te man bélier la mune Macky la judd le 11 décembre duma ko fatte mukk parce que Macky le 11 décembre la judd man tam ma ah man jaxal na ma de. bélier la wax te man la onze laa judd kon xanaa man la bëgg wax man maa koy daaneel nekkate jomaay lay wax onze ngoog Cheikh Baara du de am na lu ko yàlla may de Cheikh Baara am na lu ko yàlla may de bélier la waxoon mooy mbëkk Macky Sall parce que Macky Sall sagittaire la defe naa duma ko fàtte muk parce que man la onze laa judd onze onze ngoog gars gën leen laaj gën leen partagé gën leen partagé ah Cheikh Baara nag ay mbiram mi ngi bëgg doon waana ah. ay mbiram mi ngi bëgg dooyaat moo waxoon benn billet mooy mbëkk Macky Macky Sall mu jóge <laughs> Cheikh Bara boo demee fàtte na lii sax wax leen ko Mister Cheikh nee na waxati dëgg Cheikh baara waxati na dëgg <laughs> ay sama idole bi c'est vrai que nag maa ngi ko doon dal temps yi parce que waxu waxu say euh, Cheikh Bass yi mu doon wax ak euh, nu mu tëddati laa Cheikh Bara waxoon na ko baara Bara woon na benn kuy kuy mooy mbëkk makki salla kuy baa ngi nii man bilee la ah ben bien sûr que je fais partie ah man chaque jour ma def live man li ma def ci live Sénégal amul kenn ku ko def live depuis 2021, mille li ma def ci live wax len ma kan mo def live kan moo ma live amul parce que man chaque jour damay def live bu len xol vues parce que YouTube boy def live chaque jour duñ ko recommander do am vues yi nga yi nga war am mais man depuis 2021, ba léegi mars man Sonko bagn ko songee kërëm Assane Diouf ba mu demee ci commencé di di live di live live chaque jour ma def live man ken ëppalewu ma live amul benn liveur muy muis Sénégal muy étranger chaque jour waaw merci gars merci kon Cheikh barre Ndiaye waxati na deug. wax len ko na ci def émission parce que mom mo waxone na ko Sa defal var bi Mom mo waxone Macky Sall benn bélier mo koy mbëkk te suma djumul du 21 ak 25 19 avril moy pilier mi ngi ni moy pilier defe naa loolu la wax de suma djum ah bu fekkee ne lolou deug lolou deug la il faut que mu vérifier ko des détrange non xana dama djum dama wara djum kay déedéet dama djum du déedéet parce que xaar leen damaa juum damaa juum Aries the free big actually for sign moons uh, may not be your uh, vibe, your personality. The big three actually just about. man how much kuma sax sama signe lan la man maa ngi naan raam man do ram there? What ram we waaw ah Aries la Aries waaw ba tey Aries is the first astrological sign in the zodiac is the first 30 degree of celestial tongue uh, originated from the Aries constellation انو من بلي لو خد من في منك ني دما دما جاخل خموتو خموتو باسكو تامت بو ديفه بو ديفه ايريس دي 21 او 19 مارس ميغي ني بن كوي لاني لا وات كون موم شيخ بار واخنا دك كوي كوي لا بلي لا كوي باغي ني ايريس شيخ بار واخنا دك ما دفاصون اون افانس اون افانس دفالنا شيخ بار توت بروموسيون كوتو بوب Cheikh Bara wax dina dëgg parce que dafa ne woon benn kuy mooy mbëkk Macky Sall jële jëlee pale ba mbëkk bi Macky Sall la mbëkk na kuy léegi nañu continuer suñu live tey la 4 avril 4 avril 2024 en Sonko cancer la 4 avril 2024 j'espère que amul ngelaw xaaral ah, ma def nii comme ça ngelaw li du ma

parce que bu ko fàttewuloon dina ko wax ci émission Sandiogou mais suba wax leen ko mu defaat ci émission ñu génne vaar bi wax ne Cheikh Bara waxati na dëgg parce que moo ne woon mbëkk benn benn kuy mooy mbëkk Macky Sall jëlee ko ci palais ba man li tax loolu du ko fàtte parce que man mii kuy laa et er, Eris laa bélier laa xam nga léegi la laa bëggoon waxati ah 4 avril Youssou Ndour way na ko 4 4 44 man yàgg naa leen wax ku seetaan sama live di nga wax ne Mister Shake dëpp nekkee Sénégal sax. dama doon wax ne man 44 xaw ma lan la dafa am chiffre boobu daf maa jaaxal am am na lu ci nekk 44 daal am na lu ci nekk chiffre bi xaw ma lan la mais man chiffre boo xam ne la daf maa xaw a jig xam nga waaw bravo Cheikh ci nee na tu es fair man Cheikh Bara sama idole la mës a nekk seulement man maa Mister Shake man faalewu ma kenn loo nekk sama idole sama idole boo dérapé damay dal sa kaw ba ñëpp a yaaka ba yaakaar ne dama laa bañ waaye boo waxee dëgg moom ma ñëw ne wax wax nga dëgg chiffre boobu dafa am lu ci nekk Youssou Ndour way na way na ko 4 4 44 4 4 44 44 moom sa bopp moo neex fi mu nekk dañoo moom suñu bopp 4 avril merci mooy la mooy la mooy suñu fête indépendance Sonko daf ñu waxoon focus 2024 ana sama verre yi ana sama verre il faut ma defar leen tuuti tuuti euh, focus Focus 2024 lañu Ousmane Sonko waxoon gaay yi dige bor la tey duma est ce que du lay sama ñaari wéri sax dige dige bor la Sonko moñu waxoon focus 2024 gaay focus leen focus leen bay leen sen waxu caaxaan yi bàyyi leen nekk ci réseaux sociaux yi di xastante di top wa APR ñu leen di duggal ci ay faux débat focus leen gars focus li focus focus mooy zoom tey Taylor 4 avril 2024 Nous introniser Diomaye Fay au niveau de du palais Diomaye Fay moi nañ au niveau du palais nous l'intégral fait Coura nous ni mu donne l'écho koo di génn mais Bala Bobu, nañ avons wax Ousmane Sonko propre mu ñu promettroon def Ousmane Sonko moo ñu focus leen deux mille vingt quatre Jomaay euh, Fay ngi nii Jomaay Fay ngi nii xool leen général mussa Fall ñoom général Moussa Fall ñoom ñoo ñëw gis nga gis ngeen Jomaay dina jommax jommaxi ba pale Sonko burux buruxlu ba pale Sonko dafay surux suruxlu ba pale kaay leen jommax ñamaxi Mati Pom kenn du ko sorxo sorxo ba pale parce Pastef dafay tempo tempo ba pale mi ngi ni ana jomay mu sollu wex xol len pale bi nu mu rafetee xool leen pale bi nu mu yanjee dama né ana jomay il faut ma wayal ko wayam ci 4 avril bi ay wa xol len garde rouge yi ay wa li rafet na ali doyna war waa APR lisaan ah sama weer ni mu ko teglee j'espère que baax na focus 2024 général Moussa ci boppam moo fa nekk xool leen lii da ngay seet lii da ngay seet lii comme ni ko Akhenaton di waxee ana jomaay jomaay gaaw laay nga jomax jomaxi jomaay ana nga ana jomaay jomaay génnal ah Diomaye moom génnam bi yeex na président Diomaye sa génn bi yéex na anamu ah mi ngi ni wala ñëpp koy xaar ana ñu waxoon day am euh, coup d'état dem ci kay soof di wax naan dañuy coup d'état prise d'arme kenn waru ko def palais parce que boo defee coup d'état ah ana ñu waxoon day am coup d'état dem dem ci kay soof ci jooy di wax ne day am coup xam nga xëy na nag dañoo doon alerter rek mais coup d'état amu fi def nañ prise d'arme dara xewul waxoon naa leen Macky Sall ak Sonko dañoo juboo ci ay kaddu def nañ prise d'arme dara xewul te le 4 avril Diomaye nekk na président waaye Diomaye nag moom du génn ma woyal ko woyam bi ah Diomaye nag yow tamit ah sànq rek naa ko ana moom Aminata Mbengue Ndiaye ah mu ngoog président Diomaye ngoog ah waaw moo sol lu weex li dafay jomax jomaxi ba pale ay waay Sonko burux burux ba pale Sonko dafay surux suruxlu ba pale Mati Pomp kenn du ko sorxo sorxo ba pale Pastef dafay tempo tempo ba pale ay waay Diomaye dafay jomax jom jomaxi ba pale Sonko day burux buruxlu ba Sonko dafay surux suruxlu ba pale mati bom kenn du ko sorxo sorxo ba pale Pastef day tempo tempo ba pale ah lu mu tuddati Abdou Mbow gis ngeen ko démba ñu ba max ba max ci pale gis ngeen Amadou Ba nee na day taal réew mi bërëx bërëx ba pale Macky ne ko du fi jax jaxi ba gaa yi maa ngi waa ji ñëw Sénégal incha allah génnal leen album bu doy waar boo xam ne way yëpp da ciy bokk waaw waaw ah pale bangoog macha allah Pastef ñoo moom pale bi kontaan leen jubile leen wax leen alxam alhamdulilah Ousmane Sonko pale bi da am bureau am nu muy demee Macky Sall kii jox ko benn néeg dafay am néeg billaahi wallaahi taalaahi dafay am bureau dafay am néeg bu ko neexee pale bi pale Ousmane Sonko la Sonko moo moom pale bi ana waa APR te rek ngeen dee billaahi wallaahi taalaahi ana Barthélémy Dias ana Ahmed dara ana Cheikh Bara Dolly ah ana ñu ñoom ñëpp tey seen xol yaa ngi dagg ana Adji Sarr Adji Sarr ana Mame Mbaye Niang ana Moustapha Diakhaté ah ana ngeen noonu Sonko yi yu feeñ ak yi làqatu tey rek ngeen dee ana Khalifa al Ahmed Khalifa Niass ana Aïssatou Diop Fall xool leen palais bi palais bi dafa rafet palais Sénégal bokk na ci palais yi gën rafet billahi subhaanahu wa taala yàlla mooy karim yàlla mooy buur Cheikh Bara Ndiaye waxoon na ko bélier mooy ñëw mbëkk mak Macky Sall kuy mooy ñëw mbëkk Macky Sall génnoo ko palais ba bilaay barke restaurant Youssou Ndour way na ko 44 44 jomaay 44 4 ans ah merci man maay njaago Sonko waaye nag dama ne woon aussi Macky Sall bu defee passation de service ak jomaay tuddee leen ma njaago Macky Sall am na nag ñu ne Macky Sall waruloon génn Sénégal man d'accorduma ci loolu Macky dañ koy gërëm ndax bu duloon Macky ñoom général Moussa dañuy taal réew mi jéem a def coup d'état Macky Sall tey bànneex bi ñu am mu nekk safara ci waa APR bokk na Macky Sall bokk na ci ñu ñu ko jox waaw léegi waa waaw xaar leen ma wan leen kura Macky ni mu yollee ko Coura Macky jël na baga bagage am nga génn réew mi Coura Macky moom mi waxoon bu Diomaye nekk président dafay xaru Coura Macky moo ko waxoon Diomaye bu nekkee président damay xaru xool leen ko xool ko xool ko nee na day daw xaar leen xaar leen xaar leen ma tegal leen commencement bi ngi yolleeku kura mi ngi yolleeku waaw nee na Las Vegas la jëm Las Vegas mi ngi yolleeku bu mu wàññeeku mi ngi yolleeku bu mu wàññeeku am na ku wax démb bu mu wàññeeku kura mi ngi yolleeku bu mu wàññeeku mi ngi yolleeku ñu ne Macky mi ngi yolleeku léegi nee na day ñaanal Diomaye Faye te moom moo waxoon bu Diomaye nekk président day day xaru waaye on on va pas s'attarder s'attarder sur Coura Macky nañu xool gaa yi def naa focus 2024 bi doy na xaaral ma suñu sama weeru 2024 yi gis nga yàlla lu muy def de weeru 2024 yi yàlla xam na ne jënduma ko sax si biir bato bi laa ko foroy jënduma ko kii gars yi rek dañuy dem bàyyi seen bagage ma ne nii rek gis ko weeru 2024 yàlla moom ma dimbali ma am de weeru 2024 léegi il fait bon être Pastef ku nekkul Pastef yàqu nga barke rasooli laa yàqu na ñoom kay sof nag dañoo tiitoon yaakaar ne passation de service bi ma leen wan ñoom yéen Moussa Fall dañ ciy profité jàpp ko waxoon naa leen ci kay sof laa nekkoon di wax ah ñu nekk fa di di di di dal nit ñi ku d'accordal gi ñoom ñun yenn gars yi di dal sa kaw di wax ne non ñun waa APR lañu coup d'état day am ma ne leen affaire bi du loolu coup d'état Macky Sall xalaatul bay def coup d'état général Moussa Fall xalaatul bay def coup d'état set CEDEAO du seetaan kenn du def coup d'état parce que ñoom ñoom seen bopp CEDEAO lañ bokk te ñoom ñooy wax nit ñi kenn du fi coup d'état xaaral ma tegal leen Clédor euh, euh, li mu wax ci Macky Sall ak avion bi parce que tamit foog ñu bayyi discours alarmiste yi ñi def mak Macky Sall ak Sonko dañu dañu waxtaan ci bo mais ñom clédo dañ fi nekk chaque jour di wax ne Macky Sall ak dañu nax jomay jël avion bi daw xam nga tamit jaar wax yoy clédo vraiment heure bi du heureu nekk fi di def des discours alarmiste jomay fay nan la ko Macky Sall di tak di naxee ba jël avion bi dégg leen clédo wax dégg leen clédo wax man nee naa Sall ak ki dañu bëgg liggéey bëgg defar Sénégal la motax gouvernement bi ba légui gënugul la motax parce que man dama ragal na wa APR am nu mi démé ñu bok ci gouvernement gouvernement bi Mary taw ñaan Niane ngi nii bokk ci gouvernement bi dina leen tégal li kay so wax ci Mary taw ñaan déglu leen Kayz wax une semaine wala jours après pour en fonction mais parce que Macky Sall vraiment euh, c'est un c'est un c'est un dribbleur Alors, je crois que waruñu ko euh, Macky Sall avion euh, le premier avril le président de la République du Sénégal le 2 avril. passation de service. dégg ngeen. Macky ko ko taxañ loo pour am jotu yolleeku dem. yolleeku. parce que démb euh, le premier bu fekkoon ni dafa dafa dafa dafa prêter serment il est chef suprême na jël décret kon mënoon na teg loxo ci avion présidentiel. dégg dégg. mënoon na jox ordre généraux yi ak police parce que jour la waroon prêter serment. dégg nga la waroon.

le léegi moom moo doon président ci la noonu la def ba jël avion bi daal di daw génn réew bi man gëmuma loolu li ñu bind am naa fu ma liir ñu ne Jomaay dafa def benn geste moom moo jël avion bi mu jox ko Macky Sall man monsieur Cheikh yow xam naa leen Macky Sall saa yu soxlaa avion am na nu muy demee bu waxtaan ak Sonko Sonko jox def na ko nag premier jour xëy na sax dootuñu ko defaat dootuñu ko defaat bu leen wax kayis foofu ma dis xam tamit nit du leen xeexal nit du leen xeexal ñëw ba fii. def émission am kay soof nu muy defee émission am du man Mister Shake maa naan ko waroo defee si émission nii waroo defee sa émission naa comprendre nga waaw ah, kay foofu dafa jot ay information ñu wax ko ni le 4 avril coup d'état day am moo moom li tax mu bàyyi gars yi wax moom moo xam li tax mu def ko xëy na dafa def pour arrêter mais man ci laaj bi laa nekkoon ma ne leen loolu gëmuma ko loolu du am ci laaj bi laa nekkoon ñi fa nekkoon nag di wax gëmuñu ko ñu commencé wax ne ñun waa APR dañ ñoo di wax ne waa jaajëf Nefertiti de code 221 waaw mais Kayz Fof am na leneen lu mu wax ci Mary Teuw Niane parce que Kayz Kayz guerrier la Kayz amul lu muy ragal parce que tamit du gis mel ne Mary Teuw Niane bokkoon ci système bi ñëw nii ñëw nii rek ñu def ko chef de cabinet tamit xam nga dafa xaw a doy waar parce que tam Mary ñaan Niane dafa muus candidat la woon Macky Sall teel a rëq ndigam ministre la woon ci Macky la Macky rëq ndigam mais terewul ba léegi ministre la woon ci Macky Sall ci ci système Macky Sall la bokkoon waaye dafa muus moom moo njëkk wax jomaay laay àndal Mary Teuw Niane na ci ñu njëkk même ñoom grâce yi sax da defe naa Mary Teuw Niane moo personnalité bu am doole bu dem far ci jomaay dafa muus loolu nag jomaay du ko fàtte Sonko du ko fàtte parce que boobu Sonko génnagul kaso xamuñu ndax Sonko day nekk kaso Mary Teuw Macky Sall mënoon na ko jàpp ko ci kaso bi dafa jël risque moo tax moo tax Sonko daa daal di ko récompenser mais nañu déglu kayis foofu li mu wax ci Mary Teuw Niane parce que tamit moom moo fi nekkoon ministre kayis foofu nee na Mary Teuw Niane ministre la woon ba mu nekkee ministre enseignement supérieur moom moo bourse yi moom moo ko xañ étudiants yi bon kayis foofu amul lu muy ragal waaw amul lu muy ragal moom lu mu war a wax da koy wax <laughs> moom faalewul Sonko faalewul Pastef waaw nos partenaires xaar leen ma teg fu mu leen tegal fu mu teg ma ñaan. attaque la wala ah, fan la ko tegee nag. gars yi donc je vais commencer par le discours du président ana fu mu waxee ma ne ah. yi ngeen baal façon doxalin yi nga xamante ni kenn mënu ko am ci loolu parce que. waaye ana fu mu wane Mary Teuw Niane gisuma ko mais en tout cas kay sof dal na Mary Teuw Niane waaw dal na Mary Teuw Niane wax ne Mary Teuw Niane moo nekk ministre boo xam ne ab Ablaye Wade ba mu joxee bourse ñëpp Mary Teuw Niane moo ñëw mu nangu bourse yi ci étudiants yi affaire maîtrise tamit bu njëkk ba boo amee maîtrise dañ lay bàyyi nga dem nga continuer mais moom moo ñëw mu arrêté lu bëri bo loolu daf may def permettre ma def benn transition bu ndaw ci ci gouvernement Sonko lan moo tax boobu ba est-ce que gouvernement Sonko Antoine Diome day mooy nekk ministre pétrole loolu xel xel xalaatu ko xam nga xel xalaatu ko waaye man damaa dégg fenn ñu ne Matar Cissé mi nga xam ne ministre de l'intérieur fi mu nekk nekk ni bokk ci Mack ci Macky Sall ñu ne Matar Cissé moo dara n'ek ministre de l'intérieur loolu bu amee nit ñi dinañ ne ah kon Macky Sall ak Sonko dañoo def deal waaye man li ma wax mooy sama yoon nekkul ci Sonko ku mu def ministre Sonko bu jëloon mam Mame Mbaye sax def ko ministre man sama yoon nekku ci damay joxe exemple rek xam ngeen sonkoo du jël Mame Mbaye Niang Sonko bu jëlee waa APR ñu bokk ci gouvernement man je m'en sama yoon nekku ci parce que Sonko mooy xool lu ko neex mu def dama waru woon teel a summi sama verre sama verre yi waru ma koon teel a summi xaar ma wax leen lu tax Sonko comment tu def ko ci gouvernement bi man sama je m'en fous de ça niko boy booy Sonko ku def ci gouvernement bi je m'en fous de ça parce que man un objectif là, mon focus 2024. 2024! waxone y a un changement de régime 2024, Sonko, Sonko moy nek président Je suis nek président focus len dige bor la yaa ñu waxoon deux mille vingt quatre dañuy jël nguur gi jël nañu nguur gi. ana palais bi xaaral ma génne leen pale bi pour yéen ñu ko gisul ñu yaakaar ne yëf yi ay fola ñun foofu ñu de ñun ci réalité la nekk lii du ay gént li ma leen tegal nii sànq du ay gént jomaay fay mi ngi mi ngi nii jomaay ngi nii après sax dinaa leen wan l'arrivée de Sonko. l'arrivée de Jomai Faye anamu. c'est symbolique parce hein. que c'est. Qui du Je Faye. damay voilà wala. wala euh, jommi. du du jomax Jomai, ba pale. ah Sonko la ñu 2024, deux mille vingt dinañu jël mi Jomai, donc promesse promesse tenue ma wan Sonko ci l'arrivée de Sonko. boog jomaay nag dañuy déggoo ci solin Sonko bu bu jomaay bu sole yëre olof Sonko yor sole yëre tubaab waaw xaar leen ma tegal leen l'arrivée de Sonko parce que tamit arrivée de Ousmane Sonko et du président Diomaye fay arrivée de Ousmane Sonko et du président Diomaye Faye gars yi ñoo mën a fóot ñoo mën a fóot man sites yi xaw ma fu ñu jàngee arrivée ñu bind ko ak ER sànq maa ngi bind ñu ne arrivée xaw ma lan au cérémonie à la cérémonie wala au cérémonie ana Ousmane Sonko ne ci Songko la Sonko la bëgg gis quand même pros ah no gisuma pros pros wala nañ ko mu ne mu tax mu taxaw ak Aminata meng Ndiaye comprendre pros wala nañ ko mu taxaw ak Aminata meng kon Ousmane Sonko janam wàcce instant yi jomaay rek la ñu wane ndeysaan ah palais baa ngoog xool leen lii du euh, palais ça c'est pas le palais ça ça c'est pas jomaay euh, nii di yéeg jomaay ngi nii di yéeg di dem voilà xaar la kon nag bu ko defee kon nag gars bu leen dem te live bi dina neex sama yaram dafa tàng ngoon sax mën naa ma defal leen parce que ngoon damaa jël off mayti nañ ma nga off te rek ngeen xam ne lépp dëgg la mu ngi nii kii kii du Sonko lii du pale dama leen di laaj kii du Ousmane Sonko jantal président wala damay gént mu ngi nii du dugg ci pale ba kii du jantal président du dugg ci pale ba moo ñu ko waxoon moo ñu ñëwoon focus 2024 kon nag li mu waxoon def na ko man sama yoo nekku ci ku nekk président ku nekkul président kuy premier ministre Sonko mooy premier ministre daal bu ko neexee mu jël Mary Teuw Niane Sonko bu ko neexee mu jël Mary Teuw mu def ko chef de cabinet gis nga euh, c'est vrai que Mary Teuw Niane ci système bi la bokk je ne rêve pas de dompat leen ma pincez-moi pour voir si je rêve je ne pas bu ko neexee mu jël Mary Teuw Niane def ko ci ci ci ci mu nekk mu nekk comment dirais-je chef de cabinet légui Mary Teuw ci système Macky Sall la bokk comprendre nga Sonko ngi ni Mary Teuw ci système Macky Sall la bokk 44 chiffre bangok gay gën la gën la laaj gën la partager té sama yaram dafa tang té bisu mbégte la bisu indépendance biñ doon wax mi ngi doog am kii ne peut-être que Mary Teuw Niane donné des infos ñëpp ci système bi lañ bokk man je m'en comme de l'an 40 dama ne leen <gasps> gars yi ngeen baal ma li may wax nii blasphème la astafurlaa sax laa ci war a teg parce que Antoine Diome mooy ministre pétrole bu Sonko jëloon Antoine Diome def ko ministre pétrole sax man sama yoo nekku man li ma intéressé mooy jël nañu nguur gi <laughs> sama yoon nekkul kuy ministre pa Habib Sy warul nekk ministre waaye bu ko sonkoo defee ministre sama yoon nekku ci Maimouna Bousso warul nekk ministre parce que ñoom ñoo bëggoon ñu joxañ leen waaye bu ko Sonko defee ministre sama yoon nekk Aïda Mbodj pour man warul nekk ministre waaw comment c'est passé ah le cadre dañ ñëwoon day am coup d'état dara xewul moom laa doon wan sànq ni tout s'est bien passé moom laa la doon wan léegi ni yow euh, Nefertiti gis nga ay Mbodj warul sax nekk ministre parce que ñoom ñëpp ci système bi lañ bokk te liggéeyuñ fi loo xam ne war nañ fi nekkee ministre parce que ñëw rek ne ci jomaay bi coalition jomaay laa bokk rek bokk rek rek ah man Maimouna Bousso warul nekk ministre waaye bu ñu ko defee ministre sama yoon nekku ci pour man warul nekk ministre parce que am na lu gën a ak euh, compétent waaye li ma bëgg wax mooy sonkoo man mooy dogal lu ko neex na def Ousmane Sonko lu ko neex na def moom mooy premier ministre te man wóolu naa ko man bàyyi naa di ñàkk wóolu Ousmane Sonko ne fa la laa waxoon dama ne woon Sonko bu génnee ci lii moom ak Diomaye nekk président dara dalu ko damay jébbalu ci Sonko man loolu laa waxoon dama ne woon damay jébbalu ci Sonko instant yi amuñu droit Sonko di defar guvernement am ñu koy critiquer bu fekkee ne moom Macky Sall dafa am lu ñu déggoo <laughs> gars yi ngeen baal ma sànq ba tey dem ba léegi maa ngi maa ngi maa ngi euh, yu xool daam nag mérite nekk ma daam bu nekkee ministre garaawul sama yoon nekku ci sama yoon nekku parce que tamit ministre du n'importe kii lañ ko war a def def parce que ñun dañ ñëw pour liggéey affaire bi ñëwuñu fi pour séddoo gâteau dañ ñëw pour liggéey waaye nag Sonko lu mu def sama yoon nekkut ci parce que tamit gis nga nit da ngay gore xoolal ñun ci kàmb bi ñu nekkoon jaaxle man maa ngi nii mënu ma woon sax dugg Sénégal ah ans mënu dugg Sénégal am jabar aawo am ñaareel patriote mënu ma ko gis sama mag dee ci le 24 la dee sama mag ci jour élection yi la dee sama mag bu jigéen. ko xamne ma maa toppoon ci moom maa toppoon ci mom mu dé le 24 munuma sax dem munuma sax dem tay Sonko ubil ni buntu Sénégal kayis fofu bu ko nexé dem mor gën bu ko nexé yagar yagar ba Sénégal ah ngeen am lo len di kaas nit da ngay gore ki ki, daf ñoo indil aljana Ousmane Sonko aljana lañu indil ndax ñun ci safara lañ nekkon waxon na len APR c'est l'un des régimes les plus cupides les plus cruels de l'histoire du monde Et ñun APR la ñamal gis nga dof ba wala Amadou Ba am Haïti li am Gaza Sénégal est le pire Gaza régime bi am Sangaré euh, euh, euh, commissaire Sangaré fi Antoine ont fi continuer xam nga du Seck moo fi naroon nekk du continuer di def ay mandat de dépôt gis nga rëbës dafa ndoroon gën a fees ñun ñii ndarutuñu woon dugg senegal kon nag Macky Sall Ousmane Sonko bu fexee ba génneel ñu si loolu yëpp ah indi ñu léegi kay man man xaw ma kan mooy ñàkk confiance Sonko waaye dootul Mister Shake man duma topp nit du topp nit de Sonko tamit stratégie bi ñu waxoon affaire bi stratégie la non.

xeex bi mu ji am dañ ne soxna Sonko Amadou Ba la ñu wax moo taal dëkk bi mais nag sonkoo ci la parce que Macky Sall ba mu dàqee élection yi ci la ñëpp mer génn commencé di xeex ñu reyaat yeneen quatre personnes quatre personnes moo gën a sonnal Macky Sall mais Sonko lim ñu waxoon in fine in xaw ma yàlla moo ci dugal loxoom xaw ma Amadou moo moo yàq euh, calcul Macky waaye ba fu muy mujj daal lim ñu waxoon def na ko waxoon nañu 2024

koo xam ne dina ko porter Diomaye Faye laa tànn wala Birame Souleye laa tànn wala Habib Sy wala Cheikh le docteur Cheikh Tidiane Dièye parce que Macky li mu bëggoon mooy benn Pastef du bokk Macky Sall dafa bëggoon benn Pastef du bokk Sonko xam loolu ne kon xaar ma jël keneen ku dul Pastef heureusement ba nekkul pas Habib Sy système neex sedd rey ak reem reetaanam jël Maimouna Bousso pan jàpp jóg rafetaayam nguuru ay teg ko ci watem waaw waaw Sonko dina tànn tànn bu baax heureusement ba du pas Habib heureusement ba du Cheikh Tidiane Dièye mais yàlla ci mbiram fexe na ba Jomaay nekk président Jomaay bañ ko tànnee ñu bëri d'accord ci ku mel ne Akhenaton d'accord ci ku mel ne Jiji d'accord ci waaye man premièrement dama ne ci kayis foofu laa nekkoon ci kayis foofu laa nekkoon live kayis foofu ma ne leen ñii plan B la ñu yóbbu gars yi di ma saaga noonoo non Sonko day bokk Sonko day bokk ci biir kayis foofu lu may saaga Mister Shake yow tu es un infiltré ma ne leen discours bii ñu wax ne Sonko day waaj def discours yéen a ngi fàtte benn jour ñu ne Sonko day waaj def discours day def benn vidéo ci la Aïssata Tall génn di menacer di wax képp ku fi wane vidéo sonkoo ci kaso bi dinañ la tëj Walfadjri waroon def direct daal di ragal. man maa ngi woon ci kay live kay suuf ma leen kay lii di xeeñ plan B la may xeeñ ñu ma bul ñu fontoo plan B du fi am xam nga ñu jékki-jékki Sonko ne Jomaay gars yi ne Jomaay Sonko ne na Jomaay ut parrainage ma ne leen yéen a fi nekkoon di ma saag waaye ba ma gisee parrainage Jomaay 111 mu nekk numéro 111 yàlla ci ay mbiram 1 1 1 111 numéro 1. ba paré ma gis engouement bi ñepp commencé di parrainer Diomaye Macky Sall d' accord ci la né kon li lu bax la parce que bu len faté né Pastef dañ ko tassol ex Pastef amuñu droit sax revenir am na ñu doon manifester Medina semaine boobu manifester Medina rek yor ay t-shirt ki ñu jappalé mais parrainage 111 Macky Sall mënu ci dara ñepp commencé di bind ci la andak 111 deb deb boobu ba légui man dama gëm 111 parce que man basirou jomay dama ka mësa gëm. mais comme les dji'ji et ce sont des ultra orthodoxes nous dañ dit ñun nous Sonko rek Sonko mais man man c'était une bonne idée waaw kon Ousmane Sonko lim ñu waxoon dig lim ñu digoon jox nañu ko imagine imagine imagine, du ci Imagine, Sonko day burux buruxlu ba pale da fay surux suruxlu ba pale kaay leen ñu ñamax ñamaxi Mati Pom kenn du ko sorxo sorxo ba pale da fay tempo tempo ba pale jomaa yi ngi ni jomax jomaxina na ba pale voilà kon nak nañ len bayyi ñu liggéey mais nak dafa am ben question bo xam ñepp mom moom la ñuy laaj ñom dañ ñu waxone mercredi Ousmane Sonko day génn liste gouvernement bi bu leen fàtte ne man Mister Shake man Mister Shake xaw ma Sonko daf may déglu Nefertiti xaw ma ndax damaa mën a analyser macha allah ba lépp lu ma proposé rek macha allah dafay am. am na ñoo xam ne dañ ne sonkoo dafa baax am na nu muy demee sax du bokk ci gouvernement bi maa ngi dégg Moustapha Diop di ko wax Walf Fadjri ma ne ko bu leen ñu fontoo Sonko du bokk ci gouvernement bi Sonko mooy la loolu waxu dof la waxu dof la. man dama ne Sonko bu nekul premier ministre dina ko mere loolu la waxone dina ko mere lool ndax jomay mi, ah nga bayiko mu nek ci palais bi ko xam ne worul ko nga bayiko muy diriger defar gouvernement wor parce que nit day changer te Macky Sall système la indi bo xam gis nga ñi ñep ci Macky Sall lañ nek lañu andal général Moussa Fall ngi ni kon jomay boko ko gaay yi dañ koy sax saaxe mané Sonko mo wara nek premier ministre yamuma fa dafa wara sax jël ministre du pétrole Sonko portefeuille ñaari portefeuille la war a am au minimum ministre premier ministre ba pare nekk ministre du pétrole loolu la waxoon. gars na non non Sonko day bàyyi jomaay ah parce que Sonko démocrate la mais Sonko ñàkkul fayda dégg nga wax na ko sax dégg naa ci benn discours mu ne xam ngeen ne du ma bàyyi jomaay kese moom kese code deux mille deux cent vingt un jomaay jomaay mooy suñu président de <coughs> waaye jomaay xam na ne Sonko mooy président. billahi wallahi taala code Sénégal ngi nii deux mille vingt et un manqué wu ma respect jomaay de manqué wu ma respect jomaay de waaye jomaay fay xam na ne président Sonko mooy président Sonko mooy diriger lu ko neex mooy am jomaay bu dee nit la amul palais bii laa la wax palais bii dafa war a ut benn suite boo xam ne Sonko daf fay moo koy moom ana jamanka ak soxna Khady Kébé dañ fa war a am néeg billahi wallahi taalahi ñooñu nag gore nañu gore boo xam ne duñ fa nekk chaque jour mais Sonko dafa war a am appartement dafa war a am suite ci biir palais bi dafa war a am suite chaque semaine wala chaque deux semaine sa su bëggee mu dem fa loo xam ne du gis jomaay du déranger jomaay mais Sonko du ko def mais man su ma doon jomaay loolu laay def bu ko Sonko nangoo ça va mais Sonko pale tiitalu ko xam naa sax bu ko jomaay proposé day bañ parce que Sonko xam na ne moom mooy président léegi nag gouvernement bi la moo tax mu yéex. amna ñu ne wa APR la la ci bëgg def gaay bañ Sonko dafa ragal ak génné ma ngi dégg cerno job, mu koy wax Thierno job mu koy wax euh, xana ma tégal leen Thierno job néna Sonko Nathalie Yamba Nathalie Yamba euh, mo wax né Sonko schéma Congo bi la def parce que Kabila Kabila ba mu waré dem bëgg def 3e mandat force force baxul dafa jël benn opposant dafa naa dafa ko génne kaso jox ko nguur gi xaw ma fàtte naa sax nu mu demee xamatu moon kan la jël Nathalie Yamb Yamb boobu nga xam ne moom amul lu muy ragal ah moom nag nee na Sonko dafa def diil ak Macky Sall xaar ma tegal leen Thierno Diop moo tey barki Rasulaay Sonko bu defuloon ak diil Macky Sall man dama koy mere man sama bopp man maa koy mere deal diil ba président loolu du deal voilà mais xalaat balaa ma leen tegal Mathiam il faut que ma eggali sama sama sama sama argument bi mu leen bëgg a tegal sama argument bi mu leen bëgg a tegal mooy ne Ousmane Sonko lan moo tax mu ragal gars yi ne gars yi ne ne dafa ragal génne wala dafa yéex a génne gouvernement bi parce que waa APR ñoo ci ndara bokk mu xam ne buñ ci bokkee gars yi dañuy commencé dal ci kawam xëy na dafay jéem a fexe nu muy def ba génne waa APR Sonko ma li mu koy digal mooy leen. lépp lu mu waxtaan ak Macky Sall pour le moment na ko appliqué gor yàlla buggul wor workat yàlla buggul workat Ousmane Sonko man li mu koy diggal xaw ma ndax daf may déglu wala du ma déglu man dama yaakaar na Ousmane Sonko daf may seetaan wala bu ma seetaanul li ma koy diggal li may wax yu bëri day tombé mu mu parce que man premier ministre dama ne Sonko bu nekkul premier ministre naa ko mere. yemuma ci premier ministre dafa wara def dafa wara nek ministre du pétrole limay déggal Ousmane Sonko lenn la bu mu dégglu ñi wax né dafa wara japp Macky Sall duggal ko ci kasso dafa wara japp wa APR duggal len ci kasso bu mu len dégglu limay diggal Ousmane Sonko moy lepp lu mu waxtaan ak Macky Sall bu jubo ci né ni lañuy doxalé doxalee ma jël réew mi delloo la ko na ko ba ci kanam bu demee ba ci biir 4 mois ba élection législative bi Sonko jël assemblée bu boobaa bu ko neexee mu commencé dindi Moussa Fall dindi ñii mais munoo yow rek maa ngi dégg ñu ne jomaay dafa ne képp kuy sàcc nañ ko ko joxoñ loolu d'accord ma ci bu dee jomaay moo wax loolu d'accord ma ci yow def ko ko sax président ñaari fan ci président nga ne nañu joxoñ sàcc te Sénégal nga xam ne dañoo mën a duul dañoo mën a sos ñaari fan dafa googu ci nguur gi nga ne nañu joxoñ sàcc loolu jomaay waru ko wax bu ko waxee gars yi dañ koy dañuy commencé di sénégalais yi nga xam dañoo tiit bëgg xaalis mën nañu fekk monsieur Cheikh ñu ne monsieur Cheikh dafa sàcc dix milliards pour lan pour am tur pour jomaay woo leen na leen indi leen ay preuve te duñu indi kat ci preuve affaire u ak ak ay affaire sos loolu baaxul waaw yow boo bëggee jàpp sàcc xam nga nooy def ba jàpp sàcc jamaay fay boo bëggee jàpp sàcc xam nga nooy def ba jàpp sàcc wax mi ngi fi dossier yaa ngi fi inspecteur des impôts nga xam nga yan dossier la ñuy sàcc yeeg yan dossier la demal nga def sa investigation nga jël Afnac nga yónni leen ñu def say inspecteur mais doo doo wax ne Sénégal yi képp kuy sàcc rek joxoñ leen ma sàcc ki la door commencé génn ah naan asonal mi taal ak ak lii di wax lii leer lii Macky Sall yaa def lii yaa def laa man li may wax Sonko li may wax Sonko mooy lépp loo diggante ak Macky Sall nga waxtaan ak Macky Sall ba Macky Sall jël réew mi delloo la ko parce que Macky Sall dafa jël réew mi jox ko Sonko mu neex leen mu naqari leen loolu mooy li am Macky Sall jëkkoon na Sonko jëkk boo xam ne bu ko neexoon mu xaru taal réew mi yóbbaale Sonko yóbbaale boppam wala bu wala moom bu bu deful mu ne waa APR amatu Ba sàccal élection yi Macky Sall mënoon na jaar foofu mu na ne Amadou Ba sàccal yi. na Sonko dee ci kaso bi APR nga ko jëlal chaise bi nga ko jëlal mais l'essentiel man bu ma topp Macky bu ko neexoon mu def loolu defu ko mu jël réew mi mu jox ko Jomaay kon Jomaay li mu war a def mooy ak Sonko li mu war a def mooy avion bi bu ko Macky Sall soxlaa pour génn réew mi mu jox ko comme ni mu def démb mu jox ko mu génn réew mi comprendre nañu déglu xaaral ma xool leen Nathalie Yamb lu mu wax Nathalie Yamb moo ko wax nee na Sonko ak Macky Sall dañu def ben deal comme Congo ni Kabila defoon protocole di Cap Manuel di deng na napati Nathalie Yamb Comfort Thierno job, Thierno Diop du nit ku ñuy deglu du nit ku ñuy deglu parce que APR bu mag la Sonko rek la bañ

bind naa ci article yu bëri ku xool Thierno Diop boo defee Thierno Diop scénario à la congolaise rek da nga gis article yu Google. waaye bind ko ci. waaye ba ko ci mais Karim Wade laa jàppoon parce que am na sax may for quoi voilà. Hmm. maa ngi koy wax mais léegi Nathalie Yamb nga xam informé que moi. Hmm. damay déglu keroog ne que il y a wax na ko. waaye waaw wax na ko.

car personne ne l'a forcé à quitter le Sénégal après avoir été gracié. Lui seul a pris ses pieds pour aller s'installer au Qatar au lieu de rester à Dakar et de rembourser les 138 milliards de francs CFA qu'il a détournés détourné du bien commun des Sénégalais. Ces mêmes personnes diront donc que jamais Maki ne pourra être assuré de la loyauté <laughs> de 2005 à 2010 sans organiser d'élection je ne partage pas ce point de vue. Il hmm. par Emmanuel Macron pour remplacer le pion Macky Sall à la tête de la succursale france-africaine du Sénégal. Je sais que certains d'entre vous, pour pouvoir rester au pouvoir sans passer par la case élection. Comme Laurent Gbagbo l'avait fait en Côte d'Ivoire quand il a prolongé son mandat de 5 ans, de 2005 à 2010, sans organiser d'élection. Je ne partage pas ce point de vue. Si Macky Sall a abrogé le décret convoquant le corps électoral pour le 25 De toute façon, non. la date prévue par la Cour Nathalie dafa mel ni am na lu ñu échappé. audio bi mu teg baaxul waaye daf ñuy tardé mais mais mais bi mi ngi ciy wax scénario à la congolaise. Hmm. dégg nga congolais moom Nathalie Yamb waaye ciy wax. Hmm. léegi Nathalie Yamb boobu ah Nathalie Yamb boobu euh, li xaw a bëgg démb nii ci diggante Ousmane Sonko ak Diomaye yooyu. yu hmm. néew ci loxo France. dégg te boo xoolee discours bi Diomaye njëkk def dem na ba les alliances des états du Sahel dañ leen dañoo dañ leen fexe ba ñëwaat ci CEDEAO. Hmm. bu dee CEDEAO rek da ngay tudd Amérique ak France. wala kon donc foofu leerul donc vraiment ñu nous excusons auprès des téléspectateurs xam naa il faut ñu am occasion rek bien sûr. moom moom mu ngi dee kenn jóg mu ngi dee. sànq bi ñuy arrangé la. exact bi ñuy arrangé la mais donc CEDEAO à la congolaise boobu. jërëjëf man li ma waxee expression bi Nathalie Yamb waxee ko noonu. waaye Nathalie Yamb du ma amee information. donc nga xam ne lii nii. kon nee na Macky Sall ak Sonko dañoo diil. naka njëkk Karim Wade boobu moo doon plan ñaari la def troisième mandat bu mënta sotti mu wékku ko su mel ni Karim waaw mais Amadou Ba mosul nekk candidat Amadou Ba mosul nekk benn waa APR laa jàpp man. ah li may bind depuis 2020 pour tey ñu natal yam bu répété ko. c' parce que loolu yéen a woon na maanaa kon. ah waaw c' parce que yéen a woon na maanaa dégg nga et et nga muy doxee pas Senghor bu dem élection ba fàttali ko Abdoulaye balaa ba 2012 dëkk bi yëpp ay. gars hmm. mais seulement affaire weeri mujj yi ati mujj yi nii amul benn animation Macky bu daan dem day fekk dëkk bi yëpp mi ngi animé. Hmm. donc moi je bi. oui moo doon mu def bu troisième mandat échoué. Hmm. waaw léegi rek à chaque fois dafay am benn obstacle buy feeñ. moom moo yàq schéma am yëpp. Amadou Ba mu yàq parce que Amadou ko joxutoon Amadou Ba Amadou Ba mun na rapproché wu Pastef. dégg nga. ak waa Pastef. dégg nga wala waaye c'était possible. Amadou Ba dafa naroon génne Sonko daf ko dugal ci foo xam ne nii. xamante ne ne sumbe jur la xaw ma. foo xam ne gars bi li daan fàtt fépp amul fu mu jaar léegi man je crois que loolu la ko yóbbu après mu def lii mu def nii mais lii mu def nag. tout le monde entier observe. dégg nga dégg nga. et l'histoire retiendra. dafa dégg mu ngi tëkku ma. léegi nag on attend un développement progressif de la vérité par rapport au profil. du gouvernement des futurs nommés. looy ragal ñu xool euh, bu ñu gisee ay nitu nguur di ci dugg. politique yi def ndax day nekk continuité. dégg nga ci li ñu koy xamee. dégg lu soppeeku moom neex na xam xam nga. lu soppeeku mm. neex na xam. Mm. mu nga naxa naxa naxa naxa nax mm. mais mbir bu soppeeku rek. élection la moo soppeeku. dégg nga mm. mais en tout cas. gouvernement bi. yëf yi tey na xel. dégg nga yëf yi tey na xel sa waay. waaye comprendre nga waaw yëf yi yëf yi yëf yi tey na xel. te ñu ngi dem ci installation bi. waaw waaw. Ah. waaw mais avant mu wax loolu. xaaral la ma tagal leen. li mu wax ci Macky Sall. Macky Sall fi ñuy fi ñuy jaar ak moom ñëpp ak li ñu ko wax ñëpp ci histoire. ne ne yaayoo mag yee baax mag yee baax xam nga loolu dugg moom tam mu dugg jaan. donc moo ci mujj am ma ngay baax mais léegi Paa Ousmane. ngi dee. daf ñoo tooñ. ñoo tooñ. kii dañ ko jox suñu réew. dégg nga. mais fi mu jeexalee nii man. ndeysaan xam nga les gens partent deal. mi ngi jooy léegi moo tudd ko exclure. rek mais. mais anam bi mu ko bi ñu koy defee nii quoi xam nga. dégg nga parce que yaa ngi naan ay élégance républicaine waaw loolu même ci forme daf ñuy jaaxal. nee na Macky daf ñoo tooñ. ma bi ñu waaj a dem mesure yi muy signé ba ci côté sécurité sax. waaye <laughs> waaw yi fi moom maa du continuité rek. dégg continuité. daf ko dafa tee sama xel. Hmm. waaw am na am na ku tuddee kii Nathalie Yamb mi sax nga xam ne seen xarit la woon démb. man hmm. de mi ngi junj lu mel noonu. dañu ne dañoo dëkk ci napp amul couvert dañoo dëkk ci seen bi dégg jaaxal na moom waaw nag tooñ na waa Sénégal. dégg nga tooñ Sénégal tëju ko mais Netanyahou moom dafa jàpp ne yii ñuy def nii fan yii yëpp nag lu laa mën a continuité xëy na loxo français yi ak américain yi génnuñ ci. dégg nga xam nga boo xoolee Ba Ousmane man yàgg naa la ko wax yow suñu débat maanaam scénario à la congolaise. ok loolu de loolu wax na ko xaaral Sénégal réglé na ko. te ñoom reprendre nañ ko. waaw te ñoom foofu quoi. mi ngi dee de. parce que du ay affaire ay ay ay démarches populaires ça tas naa ACCT ay conseil économique social mooy rek ko cumulé ëpp sax quatorze milliards wala hmm. soxla dëgg dëgg dëgg dëgg mooy comment recouvrer xaalis bi nga xam ne dafa nar a daw loolu dina soxla. Hmm. déglu na gars

ku gisul ne Macky Sall dafa jël nguur gi jox ko Sonko ak Jomaay ah. ci diil kooku da ngaa gumba ku xas Sonko nag doo nit li li li li ñu wax la fin justifie les moyens non dama dama bëgg mu wax ci commencement bi. élégance mayoo ko ànd nga ak ñoom ci loolu bien que am na ñeneen ñu jàpp ko fii. dara lu ko tere ndax mu ngi ci légalité. xam nga Ousmane Sonko ak Diomaye Faye tey dañoo bu bees. a Ba daal mooy waaj. nga grand frère moom daal moom nee nañ Macky Sall bi fi ñu fi ñu jaar ak moom jox la réew wëlbatiku fi la ko fekk damul ndigu jàng. ma ngay baax mais léegi Ba Ousmane. bu hmm. ñu foyee Sénégal quoi tam. waaw defe naa fii la waxee loolu. waaw Macky Sall mii daf ñoo tooñ. dégg nga Macky Sall daf ñoo tooñ. kii dañ ko jox suñu réew. <laughs> loolu teg naa leen ko. <coughs> waaw dégg ngeen li wax Macky Sall Ousmane Sonko daf naa ko sama grand frère ay grand frère lañu. billahi wallahi wa taalahi man Mr Sheikh. Mangi ngi gërëm Macky Sall maa ngi gërëm Marème Sall. man sama yoo nekku ci deal bu ñu def ak Sonko je m'en comme de la quarante mais di gis ñu mel ne Thierno jóob seen xol yi di dagg nga gis Koura Macky jël bagage génn réew mi nga gis aji Sarr téye laminam maître Diouf téye laminam loolu jar naa deal bu la neexee ngeen tuddee ko deal yéen xanaa yéen doo leen ay nit kan mooy bañ kaay deal ma yóbbu la pale kan moo koy bañ kaay deal te Sonko ban deal la def Sonko Macky Sall mënu leen rek la ko mën a wax. kaa liggéey loolu du diil kaa liggéey ma jox la nguur gi mais loolu la def loolu la makki la def saa waay daw na euh, euh, euh, génn nañ ko war a def sànq naan day dem Las Vegas kuur a Macky daw na Adji Sarr daw na maître Diouf téye na làmminam ñoom Californie ñu ngi jëfru maître trois pommes nee na day bàyyi live loolu rek lu koy fay loolu jarul diil Coura Macky génn réew mi wan naa la ko xaw ma nag dafay dem vacances xaw ma mais génn réew mi nee na moom waxoon na ne bu Macky Sall bu Macky Sall kiiwee day bañ day day génn réew léegi nag deal bi xama fa lay feeñee kii wax na ko Thierno Diop gouvernement bi la ñuy xaar gouvernement bi lañuy ñuy xaar tey bu Sonko génnee gouvernement ñu gis Antoine Diome ministre de ministre du pétrole bu boobaa di ngeen ne xaawaa ah lii lan bu boba dama nan Sonko mo tay xamna sax Antoine diom mo munul bok suñu gouvernement dama len jox rek exemple waye même bu Antoine diom billahi wallahi ta'ala man dama nan Sonko ya tay defal lula neex parce que ba legui yaay président te Antoine diom ministre la ñu demee ba ci kanam mën nga ko genn mën nga ko dàq il faut ngeen mous tuuti il faut ngeen yew man dama dégg Seneweb wax ci liñu bind Seneweb Matar Cissé bi nga xamné moy ministre de l'intérieur bi Cheikh Bara Ndiaye kii Cheikh Thioro Mbacké génn di ko tagg defe naa Cheikh Thioro Mbacké ak Cheikh Bara parce que dafa organiser élection yu baax ma ñu gañ gaa yi ngi koy tagg de Matar Cissé dégg naa moo ndara nekk ministre de l'intérieur lan moo tax gouvernement bi ni ñu ko waroon génne depuis mercredi tey dama yaakaaroon bu ma yeewoo rek dinaa gis liste bi fi may wax ak yéen liste bi génnagul ba léegi lan moo tax génnagul ba léegi dama leen di laaj mercredi la ñu El Malick la jeudi si c'est boobu bu nekkee ministre de l'intérieur loolu loolu mooy wane effectivement Macky Sall ak Sonko dañuy job parce que nitu Macky Sall poste bi gën stratégique mooy ministre de l'intérieur ñi bëgg fayu ñi bëgg fayu 221 gars yi gën leen laaj gën leen partage ñi ne Macky Sall warul génn réew mi Mamour Diallo dafa war dugg kaso Adji Sarr dafa war dugg kaso ah, ah Mame Mbaye Niang dafa war dugg kaso ak ñi nekk si kaso yi dañu war a poste bi gën a stratégique ministre de l'intérieur la ministre de la justice forces armées ah dégg nga ki naan ma Matar Cissé c'est l'ennemi juré de Amadou Ba Matar Cissé APR la am na ñu naan ma non non du APR ku liggéeyal Macky la nekk douane pendant des années nga jóge douane ñu defal ministre xaw ma de xaw ma finance lañ ko defoon xaw ma nga jóge foofu gars yi Macky Sall wàcce la yóbbu la xaw ma chef de cabinet xaw ma lu ñu ko def. APR la ADN APR la yor kep kuy liggé ak Macky Sall nga bok ci partem nga baña bok ci partem Macky Sall ku liggé ak mom juroom benn weer rek considérant ko comme APR fan fan la wara mëna jaar ba nek suñu ministre de l'intérieur Matar Cissé fan la wara mëna jaar té mu nek ay xarit ak wa APR Antoine Diom di wayam Macky Sall du wayam ah man waxuma né lool dafa am de yow mom bo matul dina la génn sama live Marissa parce que yow yow da nga beneen dérapage ma génnal la sama live wala yow sa bopp sax yaa war a désabonné parce que man tam il faut ngeen respecté ma waaw dama leen di wax li ma li ma dégg man damaa dégg ñu ne Seneweb moo ne Seneweb moo ne Matar Cissé moo dara nekk ministre de l'intérieur bu ko nekkee sama yoon nekku ci man wóolu naa Sonko bu Sonko lu mu def man fi mu nekk nii damay tàccu billahi wallahi taalaay man aw contre ma Sonko liggéey ak Sall contre ma ko waaw waaw tu n'es pas abone waaye yaa ngi fi xaaral sama génn la yow danga may divertir bye bye au revoir ñu ngi lay euh, sigil ndigaale nag sa ci yëf xaw ma sa ñu ngi lay sigil ndigaale waaye ñun lay wax mooy Sonko moo ne toppatul Macky Sall Macky du ennemi rey nañ sa rakk rey nañ sa sa sa sa yaay wala rey nañu sa frère wala rey nañu sa cousin d'accord loolu ñu ngi leen di siggandigaale ñun ñëpp dee leen Macky Sall bu la reyul ak bal rey na la sama mag ngi nii jour élection yi la dee sama mag bu jigéen maa toppoon ci moom lan moo ko rey jabet bu la neexee nga ne régime Macky Sall ko rey parce que bu ñu amoon hôpital yu baax jabet rek 60 ans nga dee c'est pas normal ñun ñëpp dañoo deele ñun ñëpp deele nañu parce que tey ku feebar amuloo loo nga dem hôpital japet kese kese kese ñoo rek nga dee Macky Sall la rey kon bu leen fi nekk di victimiser wu di wax ne dañoo rey sama mag ak dañoo tëj sama lii dañoo tëj sama laa ñun ñëpp a sacrifié ñun ba ñu nekkee New York di di wax taal leen réew mi foo leen nekkoon yéen man damaa wane sama kanam neferti da ngi nii du ma bàyyi may fen waaw capitaine Touré tuuti na pour remplacer général Moussa xam nga tamit boo leen dox da ngeen di wax waxu waxu nit capitaine bëgg jógee capitaine dem nekk général mu am bàyyi leen seen lii affaire bi du ay partage de gâteau ñun ba ñu nekkee New New York ci ci été bi lu ma xam ne dama xaa yéex a def man dama ne woon suuf du ma wax taal leen du ma wax def leen ni waaye dem nañ foo xam ne bi métti woon na Ousmane Sonko nekk kaso bi ma bëgg ñu génnee Ousmane Sonko ak ñeneen lan laa doon wax dama am rubrique yàq gars yi sax temps yi ñu ngi mën a wax indiwaatal rubrique yàq ma ne déedéet bàyyi naa bàyyi naa wax leen bàyyi naa taal leen damaa joxe stratégie nu ñuy def pour xeex. loo xam ne dama noonu du ma ko mës def man dama noonu Mister Shake mu duggee ci xeex bi mu jeex parce que man du ma ragal dinaa booy taal leen ba pare dama doon wane premier 15 jours yi ñu jàpp Sonko sama yaram dafa tàng premier 15 jours yi ñu yàq Sonko image bu ma gis fu ñu taal man maay génne image yi wan leen ne voilà booy lii ngeen war def jël leen xeer jël leen morso takk ko ci jël diwlin taal ngooñ boo taalee mu takk këriñ. jël leen ko ngeen def boole ko euh, euh, euh, essence ak kii bu leen taal nag waa kër APR loolu moom daan naa ko wax parce que soxlawul ngeen di taal kër APR mais dëkk bi dafa war a tàkk pour ñu libérer Sonko wane sama kanam bu ma wàccoon dañ jàpp dugal ma ci kaso comme Hannibal Jim ñun ñi xeexal leen ah ñu xeexal Sénégal def appel à l'insurrection xam ne bu ñu demee Sénégal dañuy jàpp ñu continuer di xeex tey ngeen ñëw fii di ñu xas di ñu divertir yaa ngi ne sax fa li ma bëggoon wax fàtte naa li may wax rek lenn la Ousmane Sonko bu ko neexee mu jël ma Cissé mu def ko ci gouvernement ministre de l' intérieur Sonko Macky Sall ëpp ko xel Sonko ñàkkul fayda gor la bu waxanteeg Macky Sall lenn ne ko lii la ñuy def dina ko def bu ñëwee ba ci biir mu gis ne Macky mi ngi koy jéem a dribblé day jël ma Cissé mu génne ko bu demee ba ci biir gis ne imagine ñu ne Antoine Diome moo doon ministre pétrole. Sonko gaaw da koy xool bu demee ci biir mu gis ne Antoine Diome mi ngi commencé def affaire APR da koy jël kii ne na ku la xas daa xamul mais bàyyi leen ñuy wax xam nga xam nga xam nga Sénégal xam nga la mooy seen problème Mollah Morgun moom lañu gën a respecté que Mister Shake te Mollah Morgun fii la toog mu génne benn kilote mu ne Sonko moom moo am na ay ojo Sonko Sonko moo def lii génneel nga wax li nga doon une semaine laa la may moo laa Sonko dafa jox Sonko ultimatum une semaine naa la may boo génnul nga wax ne yaa def lii yaa def laa audio whatsapp yaa ngi fi audio yi boo génnul di nga di nga xam man sama damaa damaa sama sama xol dafa xanaa xamule ne Mollah moo tax ma commencé waat live man bàyyi woon naa live Mollah bu mu génnee kilotu Sonko ci laa ne nag ah ñun perte nañ Mollah Mollah xeexkat la ñoon perte nañ ko il faut que amaat keneen ku ñëw ku mel ni man waxuma ne damay moo laa de waaye live yi ñu ngi wàññeeku il foog ma ñëw Mollah moo tax ma commencé waat live billahi wallahi taala bato laa nekk ci bato laa nekk aw ma jot bàyyi woon naa live maa ngi gërëm moo Mollah moo moo gën parce que depuis boobu ba léegi amul benn jour bu ma toog defuma live rarement live même bu ma defu live dinaa dagg benn vidéo dugal kon duñ fi nekk xeexal Sénégal sacrifier deux ans mënuma dugg Sénégal sama mag dee sama ginnaaw gisuma ko sama papa cent deux ans mën nañ moo tàggee léegi woo ma léegi ne dee na ñu sacrifier li ñuy sacrifier <coughs> bu ñu waxee dara loo xam ne arrangé wul Sonko ngeen fàtte loolu yëpp lépp ngeen fàtte ñu ko ne ñun Macky Sall la ñuy liggéeyal da dugg ci site di commenter di wax lii d' mu ci lii d' accord mu ci ñu ne yow Macky Sall ngay liggéeyal man maa ne sàll Sall billaahi bu la neexee ngeen mere ma tuddee leen ma njaago Macky Sall à partir d'aujourd'hui ak njaago Sonko man mi Shake maa ko assumé Macky Sall dama koy gërëm di ko sant di ko ñaanal Marème fay Sall maa ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal parce que yow tooñ nga ñu nag tooñ nga ñu makki Sall fitnaal nga ñu waaye waaye li am importance mooy dëkk bi ndaroon a yàqu parce que yéen ay xale ngeen Sénégal dafa ndaroon mel ni Libéria billahi wallahi taala guerre civile sax mënon na fa am nga dem ba ci bir ya xam say raison man toppatoo ma Macky Sall lan moo tax mu def man je m'en fiche xawma Amadou Ba moko trahir xawma dafa dem ba ci bir mu tit ndax dossier CPI mu ngi koy xaar sama yoon ci mais li am importance Macky Sall joxna loxo ak jomay dugg ci palais ba diko visiter ne ko xolal gaynde bi xolal li jël cour gi ne ko am lolu moma intéressé man le reste je m'en fiche c'est un grand geste d'un grand patriote man Macky Sall patriote la ko tuddee Marème fay Sall billahi wallahi taala gis na len ngeen dem di aji mak dem yalla yalla nangou nangu sen aj parce que yàgg ngeen fi def ay aj ñoo xam ne xamul aji lan dem ñu maram Marème ñu jël xeer di sanni Ousmane Sonko ngeen japp Ousmane Sonko du ko ci suba si nga dem di Umar di sanni xeer ma ne xoolal seytaane yi muy yow nee nga da ngay toroxal seytaane mais yow Marème Faye yow yaay seytaane bi man génne naa vidéo di ko wane Marème Faye yow yaay seytaane bi nga nekk fii di sànni xeer waaye tey lan laa wax yàlla na yàlla nangu sa sa aj bi nga aj sa umra bi nga aj parce que li ngeen leen senegal yow ak Badio Camara ak Cheikh Tidiane nu mu sant euh, juge constitutionnel bi Coulibaly euh, ak juge Cheikh ak yeneen juge cour constitutionnel ba dëkk bi ndaree takk Macky Sall bugg leen dugal ne dañuy dàq élection yi da ngeen ne ko doo ko fi dàqee organiser élection yi dans les meilleurs délais Macky nekk bi di sukki sàkke naan les meilleurs délais mooy léegi li ngeen indiwaat beneen ne ko le 31 gaawal nga organiser élection yi Macky Sall dem ba xam ne ay pexem jeex na mu nangu man du ma du ma xool man soxoruma bàyyi leen soxor fayu baaxul Macky Sall bu deewee lan la leen di indil. Farba ngoom bu deewee la leen di indil Mamour Diallo bu deewee lan leen di indil wala mu dugg ci kaso bi la leen di indil mais nit da sant yàlla xanaa yi doo leen ay jullit boo leen jógee di woor di julli yàlla seen woor rek seen julli du leen jëriñ dara nit bu la yàlla defalee da koy sant yàlla daf ñoo génne ci senegal guute bi mu ndoroon ba fi ñuy waxee nii rëccu ñu de gis nga kay sof sax dafa ne woon tey coup d'état mënoon na am kay sof ko doon wax parce que yéen da nga yaakaar ne nit la boo xam ne amul doole ba léegi ay nitam ñoo nekk ci gouvernement bi gis ngeen gis ngeen général Moussa Fall la ñu wane léegi palais ba muy def passation de service muy def xaw ma nu ñu ko tuddee cérémonie boobu. ana gànnaay yi 45 milliards ana gànnaay ana mitrailleuse ana nervi da nga yaakaar ne nekkuñu fi Macky Sall milice la am milice il gis nga force organisée yooyu muy wax Omar Sow génn na mu wax leen ko ministre Macky Sall waaw. dama patriote la Macky Sall patriote la il a fait un grand geste pour le Sénégal te Ousmane Sonko du Diam, du Workat. Jomaay Macky Sall defal xam nga ko Ousmane Sonko li Macky Sall defal xam ko parce que Macky dafa sigil Ousmane Sonko ci ay nonam. Lolo Ousmane Sonko bu ko warul def dara Macky Sall parce que noonu Sonko yi ak ñoo bëri. ana Ahmed xalifa Niass bi waxoon ne dañu war a bombarder kër Sonko ana Cheikh Bara Dolli bi doon wax ne Sonko nitu fitna la ana Barthélemy Diaz bi doon wax ne Sonko ah ah nu mu tuddati euh, euh, euh, man sama doomu day man maa koy génn kaso bi waxoon nañ ko jalogeel wax ana Khalifa Sall ana Cheikh mi Seck bi waxoon ne Sonko Amadou Ba bu ñëwee dina toog diis ans ci kaso bi ana Mati Trois Pommes bi doon bi ñu doon xas ana Aïssatou Diop Fall bi wax ne Sonko dafa war a mas kaso ana Fatoumata Fouta Tampi ana ñoom Californie ana Françoise Hélène Gueye di doon wax Sonko yàlla mu gañoo xaw ma lu ma xamul ana ana ana mën naa continuer ana Ahmed Aïdara bi doon wax Malick Gakou mooy sama candidat Sonko du sama candidat Malick Gakou mooy sama candidat yéen waa Pastef xaar leen xaar leen ba lundi dinaa leen wax loo xam ne bu ma ko waxee yéen ñëpp di ngeen ma bàyyi. man laa ci la ko génneel ben vidéo am plus de 60 vues lundi ba deful deful émission de wax len ma indi Sonko yi ana ana khalif généro yi nga xamné dañ dañu seetaan soko pasteur Baye fali di génn ah di lak suñuy lam kenn du manifester ana ah Cheikh Niass bi ne woon Amadou Ba moy moy meilleur profil wal Walfadjri Ah, ah, ah. Binta Diallo ana Binta Diallo bi waxoon euh, Sonko dañ ko war a àtteeg dugg na fi génn na fi ana fu malade bi waxoon ne Jomaay Jomaay munu nekk président euh, président parce que parce parti dañ ko tas tey Macky Sall ñu yow ñu ne Jomaay ñu ne fu malade mi ngi mi ngi conseil économique et social wax leen ma ennemi Sonko yi sax may xalaat dama naan ni rek gis ko ana Adamo génnoon na fi mu xas Sonko lu ne ana Thierno Diop bi mu leen tegal léegi ana Omar Faye lëndamal askan wi jaam yu bon yi nekk ci télé yi sonnal ñu guddeeg bëccëg di ñu ñaawal di ñu menacer man demoon naa ba sama àdduna tukki ñu perte Sénégal perte pétrole xale yi di dee ci géej gi loolu moo ndoroon continuer bu Amadou Ba nekkoon président ana Amadou Ba mi mi ne way way Sonko dañ ko war a atte ay Aïssata Tall ana Farba Ngom nekk ci assemblée bi mel ne moom moom assemblée bi di wax ne way way man dama doon organiser xaw ma ay simba ah bi am na ay simbakat yu fi nekk assemblée bi am na ana Koura Macky damay lamsal ah Ousmane Sonko lii ak lii wax leen ma ana Abdou Mbow Kiruku kooku bokk na ci Abdou Mbow Kiruku bokk na ci billaahi wallaahi taalaahi li tax ma gën a kontaan Macky Sall li mu jëlee nguur gi delloo ñu ko Abdou Mbow kiru ko ma teg leen ko tegal leen mu ko toroxalee ci pale ba démb tan ma ko ne ñoom ñoom ñoom Ngoone Saliou ñoo ko wane xaar leen ma wan leen Abdou Abdou Mbow kiru ko anamu ah, vidéo yi dañoo bëri tellement mu def li tax ma xam ne ma génn senegal xaar Euh, sans limite là. Dina le woon Abdou Mbow Kérékou mi ngi Abdou bu ñuy wax l'incarnation de l'apériste cupide apériste bu tiit apériste bo xamné ne buggul ngir nguur gi génn ci loxom mo doon Abdou Mbow ñu melni ay yaxam bay sax mujj nañ sax dem ba effacer wu mais ku mel ne ab Mbow ak Racine Talla waa ji nu mu tudd Racine taala mooy directeur RTS ñooñu ay Farba Ngom ay Racine Talla ñoom ñoo nekkoon ci suuf di def ay manœuvre pour nguur gi bañ leen rëcc tem ci Maimouna Ndour Faye sax Maimouna Ndour fay sax di ko wax non non li ngeen bëgg nag mënul am bëgg dàq élection yi mu naan Maimouna Ndour Faye ah léegi da ngay politique ñu mel noonu xaar leen mais xool leen yàlla yàlla ay mbiram kenn xamu ko. ana Abdou Mbow ana Kirikou oh waaye Kirikou bul dawaay waay Kirikou bul daw xaar leen il ma génne leen Abdou Abdou Mbow Kirikou luñ ko toroxalee pale image boobu image boobu li mu wane mooy seen nguur moo jeex parce que nga yow nga dem kale pale ñu génne la dañ laa diri dañ laa génne ana moom sama image yi sama kii dafa bëri tellement vidéo yi dañoo bëri oh Kirikou yaa ngi bëgg am chance de Kirikou yaa ngi bëgg am chance de waaye dinaa la wane moom su la gisoon ma dem sans limite mi ngi fi léegi rek gis naa ko nii léegi léegi léegi léegi mais gars yi may la ma may la ma deux secondes Adji Sarr moo def voilà mu ngi nii Ngone Saliou Ngone Saliou Ngone Saliou Ngone Saliou sa mokk Abdou Ngow xool gars yi xool leen fii xool leen xool leen ko. xoolal. mais c'est vrai c'est vrai. parce que nag nga bu ñu jógee prestation tey liggéey bi noo gis ma ne wax dëgg yàlla tey sànni bi ni ngeen liggéey fële ah. ko bi ñu demee pare nag li may waxee ak yow nii ko ma ne ma mi ngi nii <laughs> eh, ba max ba max ci ngeen image bi ah. non gay gay yalla du nit gis ngeen gis ngeen Macky Sall ni muy wàccee ak ak xolé Macky Sall ni muy wàccee ci escalier yi ginnaw xam nga la mooy wane ginnaw ginnaaw mooy le passé Macky Sall geesuwul Abdou Mbow tu fais partie du passé légui image bu bees bi moy jomay jomax jomax ba palé yow ñu bëmbax bëmbax la génne la palé mais image bi ni ko yalla wéré muy bëgg wan ne ko yow bokkutoo te moom moo ci gën a tuuti moo ci gën a rey mi moo ci gën a tiit Abdou Mbow dafa tiit a tiit parce que moom xam na ne sax assemblée sax booy xool waru ko sax am mais nit yoo xam ne seen privilège 4x4 yeeg dugg palais avion bi mérité wuñ ko yàlla boole la ci nga nekk ci quatre ans cinq ans parce que moom ci dernier quatre ans cinq ans yi ci lañ ko jox poste yu mag yi mu ne dee du bàyyi nguur gi waaye xool leen image bi métti na ma góor ni ñu ko diiree noonu. moo njëkk fes moom ak Omar Sow. ni ñu ko diiree. jomaay di xool ci suuf. déggoo ralenti déggoo ko defee ko woon nag Abdou Karim. <laughs> waaw lii lii lii ñu koy fay Macky Sall mii ngeen di jàpp di ko xas man de billaahi wallaahi taalaahi après ngeen di comprendre après ngeen di comprendre man fii laa ko waxee <coughs> man Sonko laa gëm Jomaay laa gëm Pastef laa gëm mais Sénégal laa gëm man ku xam Mister Shake xam ne man justice moo ma ay affaire fayu ngeen war a bàyyi. wara japp dinañ leen japp ñi wara genn génn réew mi ñom ñoy jëkk sa jékki-jékki génneel seen bop réew mi Adji Sarr ngi ni day genn réew mi bu gennu réew mi affaire am day yàqu Mamour Diallo sama xarit la ño bokkon classe amnistie bi lu mu nek nek nek man suma ko doon diggal moy gennal nga balu lo meuna balu baalu boo mënul nga jaay sey keur nga jël sa famille nga gennal len nga dem Europe nga nek fofu parce que senegal Mamour Diallo ak régime Pastef yag yag gaay dinañ la topp amnistie bi sax gaay amna am na ñu mee duñ ko respecté yag yag dañ lay top mën nañ toog un an 2 ans 3 ans 4 ans mais yag yag Mamour Diallo gaay dañ lay top mambay ñaan Niang diggal koy nga koy diggal jël say bagage nga dem Maroc fekk Macky Sall ñom ñep dañu wara dem Maroc parce que am ay milliards Sénégal mom paré ngeen ci to the victoire cause the spoil man dama sportif de dama sportif de. ba ñu Macky Sall jég dama ne ñun dee nañ ñoo doon guerre di woote gat sa gat sa gat sa gat sa wuñu léegi dañoo ragal kon kay nañ ñu rey rek nañ ñu rey benn yoon ñun on est mais léegi carte gi dafa dëppaat waa APR yàqu ngeen yéen a gën a yàqu Bougazelli ana Bougazelli yàgg yàgg gars yi dinañ toppaat fii la Diomaye di wax indépendance de la justice ak di wax dañuy sóob de. lima Macky Sall def loolu la patriote euh, ñoom Sonko di def ku ñu war a jàpp dinañ la jàpp ku ñu war a dinañ la dàq dégg nga lu gaaw gaaw jomaay mi ngi naan gars yi ku gis sàcc rek woo yuuxul loolu jomaay war ko wax dafa teel parce que Sénégal yuy tiit dinañ commencé génn di sos kii moo def lii kii moo def laa kii moo def laa kon bàyyi leen fayu bu leen ko xalaat bu leen xalaat affaire fayu wa APR xam nga lan mooy seen defet arrogance bi ñu amoon mais Farba Farba Ngom dafa dem ba assemblée gars yi dañ koo ragal Farba Farba Ngom sorti bi muy mujj def assemblée billahi wallahi taalahi député yëpp di di wax lu ko neex ak ak ton bi doon waxee di wax simbikat yaa ngi ci assemblée bi lii ak lii ak laa ah waa Pastef dañ dem ba ragal maître laa Diouf kooku moom dafa bëggoon ñu rey Pastef yëpp ba ñu jeex takk El Malick ba muy def

billahi temps yu dama tuuti tey ana El Hadj Diouf gis nga gis gisati ngeen ko keroog lañ ko wone mu nek ci auto bi di saaga so, waaye gisati ngeen ko loolu moy suñu victoire suñu victoire moy instant ñu ngi genn di len baar xara ba ma dem senegal inshallah allah su ma demee Sénégal di dag ay vidéo di len tegal gaay yi mënuñ sax baar ana Khalifa Niass Ahmed Khalifa Niass fa lay jaarati <coughs> fan lay jaarati Ahmed Khalifa Niass fan lay jaarati ba Sonko gëm ko Sonko lan mo don ben nop bax ba mu wax mu Cheikh dem Sonko difa yendu difa ataya tan yu député Sonko kuko laal rien que pour nek député Sonko mais après gis nga def wor Sonko bu Sonko légui ñaan de audience bu ñaané audience Sonko waru sax recevoir mais Sonko da koy recevoir mais nak ne duma bala ma lay wax ak yow dem sama avocat day tok waru ko sax recevoir Sonko loolu moy force moy faiblesse dafa bax bu mu upp Ahmed Khalifa ness genn fi xassante ak Sonko Sonko ne yow li nga def xawma fan bañ sa bagage yi ñuy def ci xawma lan lañ def sa bagage yeen nga ngi rappelé mais terewul Sonko ba mu waxee loolu ba pare Sonko dafa dem seeti Ahmed Khalifa ness kërëm Ahmed Khalifa Niass commencé wax wax wax mais ñu togat tuuti Ahmed Khalifa Niass mom xaliss rek ko intéressé dem andat ak Macky gis ngeen kérok ci dialogue ba mu ne kër dañu wara bombarder kër Sonko ñoñu ñëpp Macky Sall da leena nax billahi Macky Sall da leena nax neena len man Mister Cheikh war ngeen ma may ay kër billahi defon na fi ben live ma tuddé ko Macky trahi PR kagn la ko def Mister Shake war ngeen may may ay de Macky Mister Shake Macky trahit la paire pour sauver le Sénégal Macky Mister Shake xaar Macky trahit la paire man xamoon naa ne non rek la Macky Sall pour sortir..! il faut que mu trahir APR Mister Shake Macky trahit trahit

créé tarixa bu bees wax naa li damay déraper. parce que lii miracle la. dégg nga lii kéemtaan la. booy bii nga doon wax ma koy xas te mu daw te Mali. Ibrahima Sall bi daw Mali. Ibrahima Sall Ousmane Sonko mooy yu fi bi conseil constitutionnel mën na ko dindi wala Macky ci boppam mu. xaar leen xanaa yabuñu ñu ba naan. li Macky Sall def euh, euh, li leen euh, wax ne assemblée li mu def. voilà de façon man lii waxoon naa ko waxoon naa ko waxoon naa ne Macky trahit l'APR waxoon naa ko Macky trahit l'APR gars yi gëmuñu ma benn xëy na sax am na yeneen vidéo avant parce que bii sax un mois la bii ba ñu libéré Sonko la mais avant ñuy libéré Sonko sax man daan naa def ay vidéo di wax loolu bravo président Sonko président amee Macky trahit l'APR gis nga bii tam vidéo bi tam noonu laa ko bindee. bravo Sonko président en main Macky trahit la euh, ak ban waaw defe naa boobu il y a bii il y un mois on avance <coughs> man li ma leen bëgg expliquer rek mooy Macky Sall dafay clignoter gauche waxoon naa leen buy trahir APR est-ce que day ñëw rek wax ne waa APR dama leen di trahir bu ko defee gars dañ koy rey bu ko defee gars dañ koy rey da di gëmloo ne amadou ba moy sama candidat lo len ko dem ba fu waré joxe euh, amadou ba khalis mu téye xaalis ba au dernier moment Macky Sall sax mu ngi doon joxe amadou ba touti khalis pour lo wa aper ne trahir leen waye ba au dernier moment mu génné mu dem voter ji ba mu voter lan la wax bu fi kenn génn joxe ay résultats parce que xamone na Amadou Ba day génn

waxoon naa leen pétrole bii bokk na ci lu ñu waxtaan ak Sonko Sonko nag dafa nit ku muus la nit ku réaliste la bu xoolee ci ay noonam rek bu xoolee ci ay noonam mën na d'accord sax loo xam ne waru koon d'accord te jar na ko parce que Barthélemy Dias xolam di dagg <coughs> gars yi <coughs> boo amee naqar doo mën nelaw démb dama ko doon xalaat <coughs> boo amee naqar doo mën nelaw fi may liggéeyee démb dama fi am pro pas problème mais dafa am ñu ma doon tey ma tëdd affaire bi xaw ma travail ma tëdd ba ay 3 heures du matin ma yeewu pour dem ci pour sawi noonu dem toilette après toogaat naa lu ma 30 minutes mënu ma nelaw may xalaat problème bi ma am ak ak ak ak ki ma doon xulool instant yi da nga yaakaar ne Barthélemy Dias mën na nelaw Barthélemy day naan chrétien la biteel bi rek moo ko mën a sauver instant yi dotul nek lucide il faut que mu nan lu beuri pour pour màndi pour faté Khalifa Sall mënatul nelaw Mamour Diallo dotul man nelaw sama xarit la de yéenewu ma ko dara lu bon billahi wal barakatu rasulullah Abdou Mbow mi ñuy japp di ko diri di ko génne kaso bi dotul nelaw Hélène Françoise gay mi ngi dé kañ la gëj live mi ngi gene jëm justifier wu Californie xamatul lu mo wara wax Adamo légui mi ngi commencé di attaquer mi ngi tagg mi ngi tag <coughs> um, Diomaye jomay fay bo amé nakar doto a nelaw sa xol day yeen yeen limay xam ngeen ko imagine nga tok am problème xaliss est-ce que di nga nelaw wala nga am jabar mu tromper la wala yow nga nek jigen nga am copain mu tromper la man dama rasat a de man warna naa sant de parce que lolou limay wax ni gëj ma dal te yalla na ma gëj dal ma tok am problème sa xol di def sa fit di def da ngay jékki rek sa fit day def waa Past waa APR li leen dal billaahi wallaahi taala moo ñu daloo gis nga juróom ñaari weer yi Ousmane nekk ci kaso bi man dama daan ni yow su ma taalee information ma gis ay information yoo xam ne day sama xol bi day dagg dama demoon ba découragé complètement da ngay yow gis ñu ne Macky Sall dàq na élection yi xoolal Macky Sall ba muy dàq élection yi damaa découragé ba xaw ma sax lu may def jour boobu ma ne gagné ma ne rayati nañu cour constitutionnelle di di di ah jomaay jomaay ñu téye ko premier tour ma ne c'est du jàll xool leen xool leen naqar yooyu ak stress boobu ñu dund Ousmane Sonko jusqu'au dernier moment <coughs> boo leen fàttali ko da doon xeex ba au pour bokk. le 12 janvier defena naa moo doon moo dernier délai ci la Macky Sall ay pexem diex mu guenné ma affaire Mame Mbaye Niang Cour suprême ba avocat Khouréchi Ba sax né c'est fini c'est fini pour Sonko yéen a rappeler mais loolu yëpp ay yakar stress 111 wa APR pendant ce temps mille ñu ngi woon ci badaxal ma wa waa APR demoon nañ ba yakar né xex bi diex na matti trois pommes yéen bugg leen ko sétane parce que boo leen ko sétané waaw. boo leen seetaanee Macky trop am seen xool day dagg moo tax ngeen bàyyi ko seetaan man nag dama ko daan seetaan waaye ndax saa yu ma ko seetaanee sama xool bi day dagg Mame mbay Niang bu génnee def déclaration mais yéen xool leen xool leen makk Sall ba muy woo bo Diallo bi Seneweb woo Racine Talla Yakham mbay ak waa ITV bi jour bi muy wax bu muy bu muy déclaré jour boobu lan la doon déclaré

ndaron taal këram sa yëpp yewo yooyu yeewoo ngay gis nouvelle yi Macky Sall di ñu toroxal jekkuñu bañu paré pare Ousmane Sonko mi ngi ci kasso bi ba légui xamuñu ci limu mu nekk est-ce que dañ ko empoisonné kay sof sax daan genn di Israël <laughs> Israël <laughs> dem nañ bu jënd poison bi <laughs> Israël xam nga mais c'est vrai il faut nga am touti paranoïa li ñu dundu est ce que yene yene a ngi koy rappeler que vous ko man mi nga xamne ci bateau bi lay awma sax man bateau bi suma baye suma suma vacances vous nu muy demee am dama bi de va venir va venir vous kuy Moustapha Cissé bi dafa 7 mois ku koy vous musulo am nopp musulo dal man 7 mois moo tax bu gaa yi di ma di ma xas daf may jaaxal sept mois maa ngi koy liggéey sept mois chaque jour neuf de temps am na ñoo xam ne dix heures de temps la ñuy liggéey onze de temps du ñu tiit xaalis man am na jigéen boo xam ne ñooy liggéeyandoo ci bato bi Philippines la dëkk sama salaire moom raw na ma dix millions billahi wallahi ëppale na ma dix millions vingt mille dollars du ma leen wax nag sama salaire ñaata la parce que dafa tiit màgget la boo ko gisee mi ngi am soixante quelque année am na këram Philippines jëkkëram am cancer jëkkëram am cancer am na kër nee na kër gi ñu ngi ci bool plage te boo ko gisee mu ngi dox def nii mais xoolal dañuy topp xaalis di liggéey ba de xëy na dañuy xëy benn jour rek de mi ngi këram vingt ans mi ngi koy liggéey ci bato bi billahi wallahi taalaahi vingt ans mi ngi liggéey ak compagnie bi mais xaalis bi la ñuy topp léegi bato bi dafa am xaalis boo nangoo liggéey onze heures de temps wala douze heures de temps man neuf heures de temps laay liggéey huit heures de temps pare mais moom onze heures dix heures de tan ëppale na ma dix mille dix millions salaire dar kebes vingt mille dollars mu ma Mister Shake lii laa am ma ne ko ëppale nga ma vingt mille dollars liggéey nga vingt mille dollars mu reetaat amuloo temps doo am temps chaque jour da koy liggéey chaque jour su set moo tax xaalis bu bëri tey su ma yeewoo li may njëkk xalaat Sénégal man seetaanutuma billahi wallahi taalahi Gaza li fa am xaw ma ko Haïti dégg naa ñu ngi reyante seen biir xaw ma lu fa am Trump ñu koy jugé Trump ñu koy jugé fii xaw ma li xew man Sénégal rek saa yu ma yeewoo Sénégo Sénéweb YouTube Séné depuis un an deux ans Sénégal rek laay topp taluma li xew ci àdduna bi sa intéressé wu ma. Maf Dadi dégg naa dañ ko dañ ko jugé nga koy waaj a xaw ma lan affaire sexe mu koy waaj a euh, jàpp est-ce que ne may dégg football dama ko daan seetaan bàyyi naa ko basket rek laa bëggoon. Lakers moy sama sama équipe duma len sétane tennis Nadal rek la doon suivre Djokovic mënutuma la wax taluma dara parce que Sénégal dañ ko ndoron perte sama lepp Sénégal la motax tax fi ma nekk nii billaahi wallaahi taalaahi ci aljana la nek Ousmane Sonko mang koy gërëm diko sante Macky Sall Marème Faye Sall tey bu ma dem Sénégal tok fa bayyi ligéy bi lool rek aljana la te pourtant ligéy bi ay millions mo fi nek waye nga mom sa rew fekk sa jabar soxna jaay fekk sa ñaarel patriote mu lay tegal Wally Seck tanananantan tanananantan dës rëg rëg ah sa gun gun gun mu nan la reug reug reug sa gun gun gu sa gun gun gun reug reug nda tay ma damay sabota rek mais nga fekk sa famille sama papa sa 2 ans bala muy dé sa ginnaw ah nga dem sa kër nga dem Sénégal di dox kenn dula japp fai mais loolu lu koy fay loolu lu koy fay man newoon naa dootuma dugg Sénégal yéen nga yaakaar ne bu woon man la lay ut Senegal su ma demee Sénégal rek damay jël risque ndaro naa risqué nag dem <coughs> waaye bu ma demee damay jël risque de nga wàcc si aéroport bi xalu xamuma ndax dañ lay jàpp wala duñ la jàpp nga nekk ci vacances comme anu anu Hannibal Jim dañ ko bàyyi mu def un mois ak jabaram noos. gars yi ni ko kirtim dugal te bu doon sax dañuy dugal ci kaso bu baax waaye ci paquetage ba yéen xamul leen li ñu Macky Sall defal xamu leen ko ak fay Faye li mu ñu defal xamu leen ko moo tax ngeen nekk fi di bokk ay waxu fayu Sonko de bu dee nit du def dara Macky Sall man de maa ne woon Macky sàll bu defee passation de service ak Jomaay Faye bu leen neexee ngeen tuddee may njaago Macky Sall man nag maay njaago Sonko du ma njaago nag olof laa waye man duma setan ci sa ci bok Sonko ñew rek commencer di di di di def lo xamne di, Sonko sax duko di, def Sonko tal na di, lu nek fi nan day japp wa di, di dugal ci kasso di, tal na ko tal na di, Sonko fi mu nek xam la la tal defar go gaay il faut ma couper live bi mën na am di, ma ñewat di, ko nak mais di, bu fekke ne am di, lu mën na def di, live di, une heure de temps mën na am di, di, man yow yow di, nefatiti di, billahi wallahi taala yéen xamu leen luy àjjana àjjana du du ay million barki rasul laay bato bi liggéeyu bato bi sama bakkan laa ci teg metti na de waaye buñ la fayee rek nga kontaan nee naa leen am na jigéen boo xam ne rawee na ma dix buñ la fayee rek nga kontaan dama ne woon fii lay retraité waaye instant bi luy fay nga nga récupérer sa réew nga dem senegal

boo doon dee sax duñu la bàyyi nga noppal ko <clears throat> boo nee sama bopp day metti ñu ne la jëlal ah, ah, comprimé nga naan ngelaw li muy la may nga noppalu ko xanaa nga dem ba mënatoo dox wala nga am corona ñu bañ nga wàll ko nga wàll ko nit neuf mois ma liggéey ko deuxième bi sept mois ngi nii may liggéey sa jabar nga koy yónnee cinq cent mille par mois man dama généreux damaa mën a toppatoo jabar parce que àdduna du ay kër du ay oto c'est pas ça xaalis gàcce lay faj sa sœur gaañu ne yéen yónneel cinq cent mille bu ci sa xalaat cinq cent mille laa yónnee ci saasi cinq cent trente mille ne soxna jëlal cinq cent mille yi jëndal nag deux cent wala si des ngeen ngeen ngeen kii ko joxe dépense dafa baax <coughs> man de billahi wallahi taalahi bu dépense motax duma am kër kon duma mësa am kër parce que nit sa jabar dang ko wara a toppatoo waaye nag jigéen ñi tamit da ngeen wara am tuti xel sa jëkkër du nekk ci bato di liggéey di sacrifier pour yow ba paré bu leen la jaaral fi nga do jaar fi bi ngeen may gis ni Nefertiti ak maa am fulla soxna Diagne yebuma ma di <laughs> la ilaha illallah sama ñaaral bi ma nekk fi di tëgg xamna na bu baax man man booy dof-doflu dama lay zappé dama lay teg ne le man ji jigéen tiitalu ma ne fa cinquante six léegi ma am cinquante six ans lu ne gis naa ko dama lay toppatoo nag cinq cent mille ku koy jox euh, sa jabar quand même loo ko dese teel te des fois damay jékki-jékki ba ne ma téléphone mën na la am mën naa la jëndal téléphone léegi cinq cent mille xoolal ba mu ko daree def ba léegi ba ma ba ma nekkee ci bato ba léegi di ne dépense góor dafa war a joxe dépense

sama xale bi Daddy la may wax bonjour Daddy bu ma yeewoo gis ma bonjour Daddy hmm. attention de dama am fulla de man jigéen tiitalu ma soo ne bu dee bu déconné <coughs> dama koy tegee nele ak côté duma la fase moom waaye dama lay tegee nele faale wu ma leen mën naa dem senegal deux mois du ma gis Soxna Jaay du ma gis ñaareelu demaat New York New York ak a neex takku saanu Times Square lu koy fay nefetidi nekk New York. Nek sa jam deux mois ngay def takkusaan Times Square dadi <coughs> la may dor xalé bu xalé bu féroce ñaaral bu féroce la am waaye xamna ma de soxna jañ tam xamna ma mané ko boo ma ma dem sama ay du sukk bi xale bi bu lo vidéo lé hey wali sek wali sek war nañ ko décorer dé wali sek dadi la may wax chaque jour man ci man ci aljana la nek yeen tok len fofu di wax naan Macky Sall dañ koy jàpp dañ koy dugal ci kaso bi ko tal man taluma Macky man damay sant yàlla ba ma mu bëggee ñibbi Sénégal parce que damaa doyal ci liggéey bii liggéey bi doyal naa ci sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk waxuma ne dootuma ñëwaat de waaye bu ma demee Sénégal damay toog ma noppalu ko bu baax su ma demee ba noppalu ko gis ne xaalis baa ngi waaj a jeex sama am naa fa terrain bu may jéem a lijjanti su ma ko mënee lijjanti xayru su ma ko mënee lijjanti ma toog nefatiti toog nekk sama jàmm jël sama temps jigéen suis ndara déconné sama jabar déconné dañ may arrangé sax ma liggéey bi man liggéey bi sama jabar tax ma def voilà gars yi doon live bi pour wax leen rek ne Sonko def ko confiance jox leen Sonko confiance bu ko neexee mu jël Matar Cissé def ministre de l'intérieur bu ko neexee mu jël Antoine Diop dama wax ak naa Diop Diop rek mais waa APR vous pouvez leen ci gouvernement bi loolu ak Macky Sall Macky dañoo déggoo ne dañu war a pétrole parce que pétrole bi Macky Sall moo xam li ci il mu liggéey ak Sonko te Macky moo yor assemblée bi moo yor assemblée bi il faut Sonko liggéey ak Macky bu ñu demee quatre mois nag bu mu jël assemblée après bu ko neexee mu changé Sonko am na droit mu choisir ku ko neex mu def ko ci gouvernement man sama yoon nekku bu ko neexee mu jël Ahmed Aïdara Habib Sy Maïmouna Bousso mister Laymi Laymi ku ko neex man sama yoon nekku ci sama Sonko jaanam wàcc na parce que lii la ñu digoon focus 2024 jox nañu résultat wasalaam gars yi Ah, ngoon gëmuma ne duma ma mais dama bëgg noppalu ko mais suma mëne def live bu dee gouvernement bi génn ngoon dina ci def live ki nee na tout sauf Antoine diom non lool mo mënul nek mom Antoine diom mo mënul nek pétrole lool mo mo yaakar yaakaaruma ko parce bu gëna a ñu jox ko pétrole pétrole bi kay Sonko si boppam moo ko a gérer bu dee liste bi génn la ngoon ko leen ma ma def ci live dénga à tout à l'heure bala sama téléphone bi di fay